waylaayo <laughs> yéen amu leen rusu kaay sax. waylaayo. yéen ñëpp ngeen tardé tey toog di bël de. wayla wayla waylaayo. waroon na commencé depuis sept heures commencé cinquante sept. wayla wayla waylaayo. man yéen jaaxal ngeen ne mu leen jóg sax. wayla wayla waylaayo. wayla wayla waylaayo. man yéen amu leen sax jom. wayla wayla waylaayo. ngeen waroon commencé depuis sept heures. waaye ngeen bàyyi ba huit heures ngeen di commencé. wayla wayla wayla ngeen bëgg a nax téléspectateur yi di leen neexal. wayla wayla wayla alors que ñoom yeewu nañu depuis fajar di xaar. wayla wayla wayla mais yàlla nañu yàlla musal ci mbotaan. wayla wayla wayla yo. <laughs> Eh, eh.